yaa ne certains Pastefien yu koy clash naan moom nu mu doon taxee bu bu njëkkoon dase ko Ousmane Sonko et cetera loolu bokkul ci projet bi te loolu dana leen naq doon ñoom ñi nga xamante moom mooy les Pastefien donc nag Pape Alé Niang war a ko woon jël foofu nga xamante moom mooy ci RTS moom mu toot leen leen man dam li ngeen laaj Pape Pape Alé Niang ak waaye RTS la moo tax ñu mun ma jël tontu moom du farax yaakaar naa waaw hmm. c'est tout Daouda mooy ñi nga xamante ne c'est-à-dire les boy pastifiens. Ah, waaw d'accord mooy waaw. Ah, waaw ah, ñoom ñi xam ne dañu bëgg Sonko premièrement noonu naa leen di tuddee. ñoom ñoo bind projet bi. du moo bind projet présenté leen ko. waaw waaw. projet boobu moo war a nekk n'est-ce pas DPG bi déclaration de politique général boobu moo leen ko jaay nan la waaw nan la fa yéenee yore réew mi. waaw d'accord ba Sonko toog. di xalaat moom ak jomaay ak ña nga xam ne tey ñoom ñoo def la coalition jomaay ak ñëpp ba ñuy xool projet bi du nest pas dañuy xool luy jëmbal Sénégal dañuy xool tey naka la ñu mën a def tey ñii ba àq ak yelleef dañ fi dañuy xool nu ñuy def tey ba noot gi dañ fi yaa ngi fàttaliku bi ko defee euh, nu mu tudd euh, euh, kiiw bi ca Grand Théâtre mooy kii bi genre meeting bi quoi. Sonko waaw jeunesse jeunesse patriotique du Sénégal. waaw Sonko dafa wax lu am solo ma jàkkaarloog moom. mu ne moom de mën na baale. mu hmm. baale na. Mm-hmm. lépp luñ ko def. waaye mm-hmm. li des nag peut dañ koy bàyyi ak sénégalais yi. waaw yaa may dégg. bu baax a baax kay. Asma Khadija. Ah. moom du doy def liggéeyam. waaw mais def si liggéey warta mën a tax tey jii Ousmane Sonko ci ba muy wax ba léegi Ousmane Sonko ca bañ koy woo tribunal coowal Adji Sarr mm. Ousmane Sonko bi mu fi nekkee ba léegi deful benn erreur mm. mais l'erreur est yow miy toog. di wax ñu lay dégg mm. di nga wax nga jàll di nga wax nga juum nga nangu ne reconnaître nga say erreur mm-hmm. en plus lenn laa bëgg seen xagg lay xam ko mm. RTS Ousmane ko moo ko moom non non très bien Pape mm. su wéyee je prends l'exemple di jël ñoo xamante ne bu fekkee ne ay pastefienne lañ waaw xam nga asma du pastefienne comme ni nga ko waxee su fekkee day wéy di jël ñoo xamante ne rek ci nguuru pastef pastef la lan la ñuy wax régime Macky Sall mooy ñëwaat à la RTS mais li muy def nii changement la li muy def nii RTS xam nga télé lan la fas yéene nekk hmm. télé xale kan mooy seen ambassadeur Wally Seck animateur bi ñu jël fan yi kan la Momo Wade boo xoolee euh, keroog maa ngi koy ab ku ma gax man leen mosuma gis page TikTok euh, euh, RTS hmm. TikTok TikTok RTS léegi day fay prix waaw ah, très bien digital digital bañ na ko seen réunion digital yi dañ koy dugal c'est-à-dire communication bi mu ngi dox teg nañ teg nañ teg nañ ay xale yu seen yu am capacité mais Asma Khadija dafa doon yëngal Sen TV bu baax sax avec sa belle voix man dama koy suivre waaw mais lan moo tax ñu war a woo Asma Khadija réew mi journaliste yi ñëpp di jóg ñii di crise ñii di live mais nga baal mais xam ma asma bu xasee ba koo njëkkee ci ci Ousmane Sonko. mais xam nga lan la. ba fàttali ko Adji Sarr ba def jikkoy féministe bi di jàppale Adji Sarr da ngay xaw a ragal de. Adji Sarr ah. am na ay jamono jigéen ñëpp jàppale nañu xam nga lu tax. lu tax ñëpp a ba yërëm ko traumatisé wu. waaye bi ñu nee leer nañ la Adji Sarr mu doon wax teguwul fenn. Hmm. mais képp kuy gor képp kuy jigéen fa Adji Sarr taxaw doo fa taxaw. Adji Sarr li may wax saa su nekk bu fekkoon ne ko leer ne ko ni li mu doon wax dëgg la lu tax muy gàddaay diwaanu France li may wax saa su nekk réew mi ñëpp dinañ fi daagu suuf Adji Sarr jamais nga dégg Adji Sarr ak ngeen dox ak jëkkëram ak doomam ci mbeddu Dakar yi mais a ses droits quand même. mais lu tax mënu ko def parce que taal na dëkk bi 86 martyrs keneen ak kan ñu complot ak régime bi nga xam ne tey moo fi nekkoon mais Ousmane Sonko nekkul Hasma Khadija rek moo ko wax loolu. kon xanaa kon bu ñu jëlaatee beneen journaliste muy góor wala jigéen wax ko Sonko dañ naan non na kii maa gis ñenn di clash. Euh, euh, euh, Pape Alé ñu naan waaw Sonko waru ko woon tabb donc kii baadoola la dafa war projet bi dafa war régime bi mais nekkul ni projet bi mooy dem RTS. Hmm. projet bi demul RTS de. ok ok. projet bi soo ak Diomaye dañ koy doxal wéyal ko sénégalais gis ci seen bopp. ñu mën a amaat deuxième mandat ñu doxal ko sénégalais gis ci seen bopp ci wàññi gi nga xamante ne mburu mi ngi jar fanweer sénégalais gis nañ ci seen bopp ci mburu fanweer mais mais est dogaatuma la nga baal maa lay dog rek nga nekk dafa neex macha allah mais asma dañ gisoon bu nekk jigéen forte parce que fekk trois mois ci ginnaaw. waaw on a vu des yéeme. waaw naam sax du moom. vaar mais gars yi da ko. lomotif ay lomotif naan ndaw si. Ah. dafa def promotion canapé moo tax mu dugg des médias. nekk une personne forte. ba tempête bi jàll. tey jii man Asma Khadija maa ko dégg ci làmmiñam. waaw. deful loo xamante ne tey jii nii dafa jëm ci wàllu média. Safia bi doon def entournou. Ah. wax na ko moo ko andi des médias. kon xam nga ne loolu leer na. mais mën nga dugg ci bërëb daaw da yàlla def ci yow don. yàlla def ci yow loo xamante ne foo waxee ñu ne alhamdulilah mais Pape Alé mi ngi n'est-ce pas mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi superviser médias yi mais lu tax mu xool ko Asma li mu tontu nii dafa ndaw ah. ku am leneen loo ciy wax dama nga wax ko ak Pape Alé te Pape ku ko xamul dégg nga ko fu mu nekkoon démb ak bërki démb tey la fa gën a nekk mais liggéey bu jotee Asma Khadija na ko def ba mu neex mais bu fekkee day toog ak premier ministre Ousmane Sonko mais waaw parce defal ndànk. Ah. te Ousmane Sonko gëm naa ne bu toogoon ak Asma Khadija non da koy accueillir Ousmane Sonko da koy jàpp mais xam nga lu tax xam nga luy wax ji nit ñi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ak boy pastafien yi ngay wax ni ah. li ñuy li ñuy teg nii wut mais moment bi dafa tombé ñu naan télé dofi kër dofi te ki ñu jël nii kër dofi la jóge kër dofi la jóge dem kër nit yi bu dee kër dofi la jógee. Ah. premièrement man terme boobu j'aime pas. ok parce que rafetul parce que keroom Mamy Samb mi ngi toog wax lu am solo. Mhm. ay collègues lañ. oui. yow tey jii mën nga dem RTS. dëgg la. mën nga dem te ba bokk ak Asma Khadija plateau mën nga dem te ba bokk ak Pape Alé plateau maam waalo mi mën na daje ak Asma Khadija on sait jamais dëgg la àdduna déewee mais xam lu tax na rafet mhm. Coro Maxu Mandela gis naa ko muy live Salma mi nga jëli woon gis naa ko muy live ñi ngi tegal ñi ngi vaar mhm. kii li mu doon wax Cheikh aj Sarr mais li tax mu analyser ko moom moo xam li tax mu analyser loolu ñu ne pion la woon dañ ko doon wax waxal lii. Hmm. li ma gën a bañ sama àdduna. Hmm. képp kuy journaliste bul mës a nangu fa ngay liggéey ñu la waxal li nga wax ko. Hmm. bu ëllëgee tu vas payer les pots cassés. dëgg la waay li Cheikh Oumar wax barki dem li tax mu démissionné. boo demee bay wax en âme et li ngay wax na la leer clair net concise na nga ko wax teg ko ci table bi. am na solo xam nga lu tax. Ah. bu ëllëgee maa ko doon dicté ci Sonko maa ko doon dicté ci Adji boo gisee Sonko di nga sëgg. te amal ngor boo gisee Sonko wala son excellence nga toog jàkkaarlook ñoom da yaakaar ñoom dañoo dof boo demee sax Sonko ak xam nañ bu baax a baax kan mooy Asma Khadija ñu ngi koy suivre mais sa liggéey def ko ak ci éthique ak déontologie ni mu waree mm. bul nangu ku la dugal bul yàq nit mais liberté de ton bi nekk ci Asma di wax li nga xam te moom la gëm est-ce que bu demee RTS du changer ça dépend ak ban émission lay def parce que ñoom suba teel lañ doon def politique lépp lañ doon def te boo xoolee Télé Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk programme yi ñuy def ça dépend mun na dem def fa people mun mhm. na dem def fa talk show mun na dem def fa comme Kinkriba bu ko fa defee aussi tamit ak régime bi bu mhm. boobaa de ci centième jour yi lay wax ci li ñuy doxal ak DPG mi nga xamante ne réew mi ñëpp ngi koy xaar boobaa moom mooy xool te li mu wax da ci am solo ku ci am looy wax dama nga ko ki ko jël mhm. waaw moom bu fekkee def na erreur wax na la ci Ousmane Sonko mën na jéggalu mën na excuser wu te Ousmane Sonko gëw ma ne am na lu mu ci jàpp mais xam nga lan laa mënul concevoir foo tourner si internet bi. na démissionner na démissionner pourquoi muy démissionner moom dañ ko fekk ci boîte jëlee ko ci boîte dugal ko ci boîte. Mhm. kon kooku koo gis ñu fekk ko ci boîte jëlee ko ci boîte dugal ko ci boîte mérité na liggéeyam. donc kooku boo ko encouragé wul. non bul ko wax. dëgg la en tout cas Asma Khadija wax naa ko léegi actuellement foofu ci RTS fa la fas dem dafa yëngal jóge kër dafi dem kër nigi loolu la Aïssatou wax <laughs> aywa ñu ñu ñu avancé ba léegi je crois que mbokk yi mais nag euh, Aïssatou tey gars